waaw bi ñu nekk ak bi Ama ñu ngi leen nuyu. waaw jàmbaar ñu ngi lay ziar bu baax a baax. loolu ma laaj lu waral teewaay bi sax mais tey sa Pokola sa jarbaat noo ko waajalee. waaw waaj nañ ko ñun ñëpp wax dëgg yàlla du ko ñaanal yàlla ko suñu borom defal jàmm rek waaw du ko ñaanal yàlla ko suñu borom defal jàmm wax dëgg yàlla taxaw na lu mu war a taxaw Jules Baldé boo xam ne moo ñu yor ñun ñëpp tàggat tàggat na ko taxaw na ah, def na jaar na mu war a jaar du ko ñaanal yàlla ko suñu borom defal ndam. mais ñu bëri naan xale la boo xam ne dalaa ci lépp ci jàmbaar ci ñem mën lam bi ñeme gëw est-ce yaa ngi koy gis. waaw xam na moom koo yàgg rek dañoo yàgg nekk man comprendre si lépp xam na ku si nekk rek am na loo jël si man am na man tamit am naa lu ma jël si ñoom da koy ñaanal yàlla ko suñu borom defal moom jàmbaar la. Hmm. adversaire bi bëreel tey lan nga nan nga ko yabee Dame Souguer. waaw kon mbër xam nga xale moom bu tollee fii doo ko yab doo ko def dara doo koy bàyyi ak dooleem ak fuggam ak tuuti lu ko yàlla dénk xam na dañ koy ñaanal yàlla ko suñu borom defal cat en tout cas xale bu ñu liggéey bu ñu nee Ama Balde bokk na ci xale yi dañoo commencé de rien du tout ba dara doonagul dara ba tey nga am foo egg ci làmb Ama bi doon bëri Iba Mar ni mu tolloon ci dayo ak situation tey nga dépassé ko ak fi nga yegg lan nga yëg tey boo xoolee en arrière. waaw dëgg yàlla yi sant yàlla bu baax a xam ni xam ni def nañ tuuti jéego rek si làmb tuuti parce que jëlaguñ roi des arènes nekkuñ champion dégguñ daal dañuy sant yàlla bu baax a baax xam ne tey bu ñu toogee fii lu bëree bëri la ñuy gis xam na di ñaan yàlla yàlla def jàmm rek si làmb wax dëgg yàlla làmb suñu sport boo xam ne bëgg nañ ko te fonk nañ ko. nga toll ci jamono joo xam te ñu bëri ñoo bëgg nga bëree doon nañ dégg fan yi ñu sa diggante ak ba waa këram ni ñoom bëggatuñu Ama Baldé kàddu yooyu noo ko déggee. non déggoo moo ko dara wax dëgg yàlla mbër laa te Tapha Tine kese nekku fi keneen keneen nekkul nekku fi comprendre na dañoo defoon suñu suwaa ñun ñëpp xam na moom champion la da koy ñaan yàlla suñu borom defal jàmm rek. Mhm. diggante Bombardier également ñu ngi koy dégg parce waaw daanaka wax dëgg yàlla yàlla na si def jàmm xam na dañuy ñaan yàlla nag yàlla na ko yàlla sotti lu si des tuuti la rek dañuy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla sotti. Hmm. sëli bi sa fit jaaxal nañ de Bombardier ak ni mu toll ba diisul. waaw Bombardier ñun suñu suñu papa la suñu grand la suñu lépp la dañ koy ñaan xam nga man moom tàmmoo dañ ñaan mbër sens waaye Bombardier moom dañ koy ñaan sens waaw dañuy am plaisir pour bëre ak Bombardier dañ koy ñaan sens di ko ñaanal yàlla ko suñu borom defal jàmm victoire bu mu demoon jëli ko kontaan nañ si bu baax a baax di ko féliciter bu baax a baax hmm. ama faral di diriger adversaire est-ce que Bombardier dina neex a diriger. waaw xam moom tey euh, keneen keneen diriger la dañoo nekk ay xale nekk si euh, si si écurie euh, lu làmb bi aajoo rek ak staff bi rek ñoom nañu wax nañ ko defee nii defee nii bu ba të ñu def pexe. biñ seetee Modou Lo dégg nañ mi ni digganteem ama tôt ou tard day am nag amateur moom fa la tool grisson bi dugal na ko dugal ko. waaw loolu sant yàlla rek. di ko ñaanal jàmm waaw parce que tamit champion la kon ñu ñëpp dañ koy ñaanal yàlla ko suñu borom defal jàmm xam na du ko ñaanal kon mara moom kon lu ñuy wax rek yàgg yàgg yàgg yàgg kon jaru ñuy sori dama koy ñaanal yàlla ko suñu borom defal jàmm yàlla tamit defal ma jàmm ba keroog rek bu ko yàlla dëmmee rek ñu xam ne noonu la. Hmm. sang gis na la nga xaw a yëngatu bu ñu rëkkee ndëndi nam nga lamb en tant que sportif de haut niveau nga toogee at compétiro lool nan lay def ci yow wa wa wa deug la namu naa làmb trop wax dëgg yàlla xëy na nag bu ñu entraînement yi nekk si lépp 100 dina am lu dess xamna bo deug yalla dina am lu dess di ñaan yalla yalla suñu borom teggal ñu ko mhm. tan nañ ci yow ñu bàyyi nga tak loy wax ci Zarak Vision wa jere jërëjëf di kontaan ci yow xeyna bi mo nekk première fois sa ñu jaxaro wa dañ lay bàyyi xel bu baax wa wa deug yalla ci question yi ki respect xamna lepp la ñaan yàlla na suñu borom defal jàmm kontaan nañ si yow jërëjëf jaayëf bëggee